That was his fault. néewlu néewlu mënul nekkaat. ndax mënul nekkaat sax ñaar yoon. non aar nag bàyyi say. saa yi moom mooy fin de carrière ñoom ñëpp ñoo ngi dèjà ñoom ñëpp ñu ngi si fin de carrière ay mag lañu. Ah. Hmm? yee te ñun ay xale yu ndaw lañu xaw ma cuur. dëgër këj. yee amul leneen. mais mais mais deux deux deux contrat nga am mais aada ba tey dara ñoragut donte am na benn suspension di ñaan yàlla ne suspension boobu dañ waaw parce que loolu ñaan boobu affaire gàllaaj moo loolu noonu nan nga koy gi ak lan nga wax CNG waaw loolu leen ñaan ñu baal ñu jéggoon ndax ñu lamb lañ am hmm. leneen mais aada nag mais xale xale day juum rek ñun ay xale lañ xale dañuy xale dañ koy wàññi rek uh-huh. yee noonu la demee soo bëggee gis roi des arènes buy dox xool Ada Fass wax ak ada ke dawde sëñ Mor kay moo ma leen deux minutes rek jàpp si ñoo leen indi seen caméra yi waaw yaa ngi indi seen caméra yi ay sonu kii bi indi seen caméra yi maa ngi lay fay. Ah, ah. tey euh, nga fekk si sa papa. waaw tuddee ko drapeau bi sa ñëw. ñu gis tey aada euh, euh, ñëw yan témoignage ñaar ñoo des. dëgg la waaw suñu papa suñu lépp moo xewle tey sëñ Mor nit ku baax ak nit ku bëgg nit. waaw moom amuñu fayam waaw ndax nag moom bis moom waaw bis du tuuti borom lay tolloo daal te ah, doomu aadama amul lu dul bisam moo tax tey ñu bàyyi suñu lépp ñëw teewal ko doolal ko dem yóbbu drapeau sëñ sëñ Mor non sëñ Mor bu ma commencé ñaanam yàggul mais mais ni ñaanam ay at ay dix ans wala xam nga rek bëgg quoi dafa bëgg te wanewul dara dafa ñëw wane bëgg bi d'accord Ada bu mu bëree ba tey proposition yi bari na mais pour mu am combat dafa xaw a métti ci Ada Fass la wala adversaire yi nga bëgg a. météo su man man athlète laa man sport laa am. Ah. kon dara amul dara luy métti man. Ah. képp ku ñëw pour pare bu bëri ñu ne pare nañ ko bëri moom. Mm. Ada Fass dañ ko jox avance Sa Thiès mu daw combat boobu. Eh, non ah. non. jox ñu avance non non. mais mais mais Ada. stratégie bi nga génnee bees toog ba mu yàgg kenn gisu la nga génn rek ne damay bàyyi bëre mu jur polémique bu bari. gëm la wala da ngay mbalak non dama am ay kilifa waaw dama am ay kilifa dama am ay kilifa ah, lool noonu instant yi entreprenariat la quoi. nag ban jàngat def ah daal gis nañu Sénégal nekk Fass kese ku nekk équipe bi kenn nekk équipe bi loolu ban jàngat ak tamit instant bi aada fu mu toll est ce que aada am na dayoon fu mu toll ci ah, bu baax bu baax mais tamit nit nekk daa am kilifa quoi ku nekk daa am kilifa. tey mbër yi la woo di réeru cadre loolu la waaw loolu noonu na naa rek ndax tey tey jii ku la di la wax loo xam ne tey jii sa avancement la wala dara nit ko ku baax la yéen làmb ji ñoo ko bokk mais ay làmb ji foog réer la rek mais teewale dañuy liggéey. la dëgër démb gis nañ ko ci plateau bañ na ko sa combat ak Fass mu reetaan rejeté wu offre boobu loolu nan nga ko dégg. waaw loolu mooy loolu sant yàlla rek. waaw ñun dem ba teg ñuy wax la dëgër biir ñu si làmb fuuf amaa ñun ay xale lañ ay xale yu ndaw comme que cuur nag dëgër këj eh, kon amaana man. <laughs> nekkul moom nekkul keneen moom jaaxal si biir géew. waaw nekkul moom nekkul keneen. waaw nekkul moom nekkul keneen. barki de ma ñaan bëri si la. waaw nekkul moom nekkul keneen. gis naa la gerte lool. man damay padd nag. na padd nag laa dama fay padd nag nga nag mu toll. Hmm? da koy padd mu daal. mais la dëgër mën nga koo padd mu daal. la dëgër néew lu muy ñëwaat mën nga ko padd mu ah, daal. néew lan néew lu. néew lu mënul nekkaat. ndax mënul nekkaat sax ñaar yoon. non aar nag bàyyi sa moom mooy fin de carrière ñoom ñëpp ñoo ngi instant ñoom ñëpp ñu ngi si ay mag lañu. Ah. yee te ñun ay xale ndaw lañu xaw ma cur. Ah. dëgër këj. yee amul leneen. mais mais mais deux nga am. mais Ada ba tey dara ñoragut. waaw am na benn suspension di ñaan yàlla suspension boobu day. amiin incha allah waaw parce la woon teel a fii. sama xarit bi sëñ Mor nit ku baax ki. nit ku am valeur. borom xam-xam bu sell bi. Mm-hmm. moom lañ tuddee drapeau. ma mm-hmm. bàyyi li may def. bàyyi añ beeg reer beeg ndékk bi. àndaale nga peel bi wala àndaale peel baa ngi gàlle. dégg naa tonn woo man man man li moom rek ba peel bii. waaw lii <laughs> waaw peel bi pare na suba. waaw boo ma seet see suñu koñ. waaw barke yonent bi ma génneel peel. mais peel bi pare na defar nañ ko ba mu rafet. barke ah. yonent bi. suba maa lay seet suba. suba laa lay seet si. <laughs> aadaa ngi noonu. man ñii laa lay wax ne ñii. mais Ardo loo naan nii doon dem. loo naan dem Sarr nga jëm. <laughs> Ardo nee day dem. mais léegi ñoo def supporter yi. waaw néew lan. néewlu néewlu mënul nekkaat. ndax mënul nekkaat Dakar du sax ñaar yoon. non Ardo nag bàyyi sa moom mooy fin de carrière ñoom ñëpp ñoo ngi instant ñoom ñëpp ñu ngi ci fin de carrière ay mag lañu. Ah. Hmm? yee te ñun ay xale ndaw lañu xam bu cur bëgër ah. këj. Ah. yee amul leneen. <laughs> mais mais mais deux deux deux contrats nga am mais aada ba tey dara ñoragut. waaw donte am na benn suspension di ñaan yàlla ne suspension boobu day. amiin incha allah waaw parce que loolu la ñuy ñaan mais tey suspension boobu affaire gàllank moo taxoon ñu suspendre la ci loolu noonu nan nga koy ak lan nga wax CNG. waaw loolu lu leen ñaan njëkk rek. Hmm. ñu baaxal ñu jéggoon ndaxte ñun làmb lañu am. Hmm. leneen. mais aada nag aada nag Fatma Dia li muy jéggalu daa bari de. waaw moo ma jaaxal xale xale day juum rek ñun ay xale lañ xale dañuy xale dañ koy wàññi rek yee noonu la demee soo bëggee gis bi dox xool Arafas hmm? man gisuma la woon te la moo andi sama xarit bi sëñ Mor nit ku baax ki nit ku am hmm. valeur borom xam bu sel bi hmm. moom lañ tuddee drapeau ma bàyyi li may def bàyyi añ beeg reer beeg ndékk bi andaala nga peel bi wala àndaala woo peel baa ngi gàlle dégg naa tonni woo man mais man li moom rek borom peel bi lii amul mais mais Dine. <laughs> bi pare na suba. waaw boo ma seet see suñu koñ. waaw barke yonent bi ma génneel la pelle. pelle bi pare na gars defar nañ ko ba mu rafet. barke ah. yonent bi. suba maa lay seet suba. suba laa lay seet si. <laughs> aada ngi man ñii laa lay wax ne ñii. mais Aada loo naan nii doon dem. loo naan dem Sarr nga jëm. Aada ne day dem. Touba Mbacke ndam rek